Assalamualaikum wa réew mi maa ngi leen jam. bax kuiya di leen ñaanal jamm kep ku yewoo ci Kër rek di leen woo ci sunu bis boobu nga xamanteni bisub ñaan gi euh, bisub ñaanal way dawli di bisub ñaan di bisub alquran, di bisub xasida manam bis bi nag euh, bisub bis bu yo xamanteni dañ cee am yene manam ñepp tewlu ko wuñ ci benn bur wi ku ko man sax bo ñewé ngir yalla ak mbokk ka nga dendal bul wax ak mom ku ñew na nga indalé sa kurus ñu def ko manam ñaan ñaan day day day tew manam ñaan dañ koy tewlu bu ko defé bisub alcorane lay doon bu xeye daara yi nek ci dëkk bi yépp di Kër Moussa yenen fa dajé ci alcorane mi ñu ci joggé ñu jublu ci njàngum xasida mi ñu ci joggé ñu jublu ci salatu ala nabi yi dugal ay yenn élément ci gan yi ñi nga xamanteni gan yu amum solo lan non lañ ko xalaté bu ko defé ñi nga am yene ay ko ak wa Kër Moussa gi yépp xalaat bi yalla da ko dogal mu jaar ci ñun rek wayé du yëfi kan nit waaw di wax ni mangi ngi woo ñëpp ndax yëf yi wéet naa ci lool yàlla xam na ko wéet naa ci lool lool lool lool li ma woote nag xam naa ko du ma ni mën ko waaye am na lu ma ci mën li ma ko waaye am na lu ma ci mën kon nag su ma ku am xel tey nit te yow di nga fexe saw ñaar fukk dugg si di nga fexe sa 100 francs dem ci waaw loolu daal maa ngi koy maa ngi koy wax waaw kon kon. di ci woo ñan ñu ci mel ni. waaw di ci woo waa dëkk bi rek ku ci maanaam ñi nga xamante Euh, seen kër am nañ fa way dawlu ñi nga xamante sen seen waa kër kenn jogé na fa ci ñom ñu ñu daan and ak mom ñu ando defando seen activité ñu daan bokku di defandoo muy seen rak wala muy seen mak wala muy seen jarbat wa aksi wala muy seen wajur kum ci mëna doon rek ñu lay wo ci bés bi manam dañu amul manam dama amul manam xajj ak seen wa loolu mom musta nek ci sunum xel ay xajj ak seen wa ñu may ñu may xam bu baax xam nañ limay wax te manam dañu mënta manam ci kër gu nek ndax maanaam amuñu waruwaay maanaam dañu maanaam daanaka dañoo wër-wër ba sonn waaw ñi ngi ñi ngi jégalu ku ko dégg rek wala ku ko gis rek nanga xam ne lii mooy sa woote bis bi la 27 la muy dimanche bi ñu dëgmal bu soobee suñu borom di ci woo imaam waaw imaamu dëkk bi doomi chef de quartier yi ak chef de quartier bu dëkk bi ak ku dëkk ci dëkk bi rek daal ku dëkk ci tund jandeeru rek autorité yëpp maanaam ñu ngi leen ciy woo waaw di bàyyiwuñ kenn daal bàyyiwuñ kenn kuy kuy kuy kuy kuy wax ashadu an la ilaha wa ashhadu anna muhammadar rasulullah waaw waaw waaw moy le 27 inshallah di dimanche bi ñu dëgmal ku mëna téla ñew rek ñu song ci manam jangum alcorane mi mëna dugg ci armel yi bay ko bam leer bu ko defee ñu daal di ñaanal ñu fa tëdd daal di wëlbutiku ñëwaat ci ci alxuraan ji waaw ñu ñu ñu ñu dox ci yenen ci dess bu soba yalla programme bi ñu démé programme bi manam dañuy jang alcorane ji ci suba ci bu wax ci dimanche ji suba ci dimanche ji manam 8h kum fa fekk rek ñu tàmbali kaamil yi bu soba sun borom bu ñu joggé jubli ci njàngum kurel yi nañ fa kurel xess de yi dinañ nekk ci xess de mi kuy ñew bo indaale ci kurus ñu nekk ci ala nabi yeeg yu demee nonu am nañ fa ay gan tamit yo xamanteni dañuy dañuy dañuy waxtaan ci ci suñu ak ñi fi joggé ndax manam kóllëre gogu waruñu ko dag wa way dawlu yoy ñooñu fi joggé dafa ñoo am kóllëre gogu amul suñu ak ñom loolu waruñu ko yaq dañ ko war di wéel wa dañ ko war di wéel ndax ñom ñi ngi ñuy dégg ñi ngi gis wa te dañuy dañuy dañuy sakku ci ñun ñaan kon dañ leena wara war ñaanal ñom ñu ñaanal ñu waaw kon kon kon maa ngi ci woo ñëpp jërëjëf